chers amis internautes de la leen di nuyu di leen remercier bu baax a baax si ni ngeen yàndee saa su ne ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série euh, famille ko ak Kodou ak Fanta mi nga xam ni ñoom nag tey euh, ñoo ngi xuloo euh, dem sax ba seen dënn di jokk ndax lépp nag comportement Fanta Seydi ñu jàpp ni nag Fanta Seydi amaana dafa nekk rek di tooñ àll waaye moom Fanta mu jàpp ni moom li mu def defu ko pour dara Seydi nag jàppewu ko dara ba toor nag kontaan na ndax ku ne xam na ni ay nit Euh, bu ñu àndee di la xeex bis bu ñaañoon jotee yow sa ndam lay doon ba tax na Batoor kontaan ndax ci buntu bi la taxaw doon leen déglu euh, ba tax na Alima nag ñëw euh, di leen jéem a xelal di leen a jéem a itam dëfal pour ku nekk mën a bàyyi ndax moom Alima xam na ni Fanta waxewu ko dara waaye ki nga xam ni moo di Batoor itam mu ngi profité ci situation bi pour nag am ndam seen kaw ñu jàll ci Issa mi nga xam ni moom it daa bëggoon jaxasee Fanta ak Mar ba tax na muy yàq deru Fanta waaye Mar moom comprendre na Fanta pour dara ndax xam na jabaram waaye isa yemu ca euh, bi euh, boobu jàllul dafa créé beneen te mooy que ni Fanta dafa am ay gàllaaj yum def euh, ci suufu lalam waaye bi maar demee gisul dara ñu jàll si jaare bi nga xam ne mi ngi continuer di séduire àll loolu nag sagar da cee yem ba tax na nag mu koy dem sax ba koy menacé que ni su bàyyiwul dina ko boole ak koddu waaye mel na ni moom jaari ñemewul koddu ndax à chaque fois day wax àll bu koddu yëg te tey bi ko sagar waxee waxu koddu dafa daw dës ñu jàll ci maar mi nga xam ne nag comprendre défendre na Fanta waaye yemu ci dafa ñëw di ko défendre ndax xam na ni bu baax a baax que ni Fanta du defu ko pour bon ba na nag mu sàkku si moom pour mu dem baalonte ak ak ndax jàmm moom moo gën loo mënti gis te dañoo ci feet te yaakaar naa jouru feet moom problème a xaju ci ba na nag àll moom it nga xam ni xolam dara nekku ci bi Fanta ñëwee baalu ko da koo baal ñu jàll ci Simon Penda mi nga xam ne nag jàpp na ni Fanta ak alimam dinañ gën a xat ci kër gi ndax kodd moo leen doon jàppal tànk te tey kodd dina leen mere ndax kodd du nangu fanta def waaye malal moom jàpp na ni koddu xolam dara nekku ci te nag jàmm dina dellu siwaat waaye mel ni euh, koddu moom bëggatul am affaire ak ki nga xam ni bi di continuer waaye nag li jaaxal ñëpp mooy ndax soxna Batoor respecté dress code bi nga xam ni moom lañ teg ci kër gi ñëpp sol weex ndax soxna Batoor dafa tàmm à chaque fois bu nit ñi defee li def ba pare mu fëllee feneen di def ñoom concours sañse ñu jàll ci fanta mi nga xam ne ak aliment bi koddu ñëwee woo ko pour photo ak moom loolu nag di wane ni ñoom jàppaluñ dara code te buñ sañoon niñ meloon ñu continuer ko code itam hésité na ndax nag ku ne xam na lu fees ci xol euh, feeñ ci kanam euh, donte nag wuyu ji na leen waaye nag xolam euh, nanguwul à cent pour cent mu mel ni kon jàmm mën na ñëwaat ndax bu ko ñam alima xaccee ci seen kaw dina ñëw waaye li jaaxal ñëpp nag mooy batoor mi nga xam ni nag dafa bañ ne du ñëw ñëpp ne ci suuf bëgg a fotowu waaye finalement daal nay débarqué waaye bu mu ñëwee ñëpp suula soog lañ nekkee amaana mu sol lu weex mu bett leen ndax bu solee lu weex dina leen jaarul woon mu respecté dress code bi waaye aussi bu solee leneen itam dina leen tiital ndax dañuy xam ne defati na mëninam kon mbokk internet yi foofu la yem ci épisode 32 bu série famille sénégalaise ma jox leen dig daje si beneen épisode mais laata boobu leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba si bi ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf